asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbooloom jullit ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bëgg ci yéen di leen ndokkeel ci daje bi ñu fi daje dara yëkkati woon lu dul ngir yàlla ak lislaam ñaan bala ñuy tàmbali waxtaan wi kenn ku nekk mu jéggalu ci boromam jàng faatiha ci kitaab bu sell teg ci fukki lixlaas ak benn fukki salaatu ala nabi ak ñaar yéene suñu borom ci baaxam gi yemewul fenn ak yërmandeem ju bari ji mu nangu ko ngën ji nangu ful ko ngën ji ful jàng ko ngën ji jàng jagleel ko rooxu seen Cheikh Mbay ñi sosoon ndaje mi fii gannaaw jéggalu faatiha fukki lixlaas ak benn fukki salaatu ala nabi ak ñaar yéene loolu ñi fi daje ñu tam yal na suñu boroom yokk suñuy fan képp ku fi ñëw ko am yéene te mënuloo ak bépp jullit jéggal say bàkkaar faj itam tawat yi ak ràgg yi faj soxla yi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu baax nag du doy lu baax du doy kenn xamu ko dul ki fi jóge nag ki fi jóge rek moom moo xam ne lu baax du doy te dara du doy foofu ñu jëm ëllëg kenn amu fa du la doy kon nag lu nit dawal rek war na koo xeeb boole kon jataay yu mel ne jataay yi ñuy waxtaane yàlla ak lislaam bokk na ci jataay yi texe kon lu mat di bari la sàggan bari na yi fàbbi nit bari na yàqu-yàqu yi jamono bari na soxla yi bari na ba dara xaju ci daanaka fanu jëm taraayu bàmmeel yàgg na nekk gi nit di nekk ci àdduna ni mu gàtte lépp lu koy jëriñ foofu ci nekk gu gàtt gi la koy fàggoo kon bokk na ci li dolli ne dara du doy foofa daje fii nag di waxtaane yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi yëkkatinu daje fi toogoo ci suñuy soxla ñu yendu fii ku ko mën fa si yéenee fanaan ne yàlla rekk tax jëf ba jëf ceex jëf ji ñu jëf ngir yàlla ci gën wax ba wax jeex wax ji dëgg te ñu wax ko ngir yàlla ci gën suñu boroom dafa wax ci suuratu luqmaan wa laqad aataynaa luqmaana al-hikmata an ashkur lillaahi suñu boroom dafa jox sayyidina luqmaan alayhi salaam ñi ne yonent la ñi ne wàllu la ñëpp daje ci ne jaamu suñu boroom la woon bu suñu boroom xamal xam-xamu xikkam xam ngeen ne xam-xamu xikkam du lu ñuy jàng ci këyit lu suñu boroom di sol ak jaam la jaam bu ragal boroomam ba xolam set ngeen ne xol bu setee ba set ruu set amul benn gàkk lépp lu mu jëf leeru jëf ja day jolli ba àgg aras xam-xam xikam nag ruugu set ba mel ne seetu secret ya nekkoon ci lawx mahfuus wàcc si ca ànd ak leer ga di xiir boroom ci li yàlla bëgg di ko bañ loo li yàlla bañ di wal ci ay cëram sawar ci jaamu yàlla ay noppam sawar ci déglu lu jëm ci yàlla nit na mu gën a texee rek la wax yàlla di gën a neexe ci xolam noonu la ko noppam di gën a sawar a dégloo noonu lay tànkam it di sawar a dox dox bu sori ngir dégg benn baat bu koy jëriñ ëllëg wala ngir jëf fa jëf joo xam ne dana ko jëriñ ëllëg xikam boobu suñu borom di nettali ci ay njëriñam ci lim jox Luqmaan njëkk a wax anushkur lillahi sant yàlla sant yàlla bor la xéewal gi yàlla jox jaamam ci àdduna kenn mënu koo lim aafiya jàmm ji nga am ba mën a toog rek di wax sa soxla wala nit di wax nga di ko dégg xéewal la goo xam ne kenn mënu koo sant te cant war na ca rawatina leneen lu ci topp te képp ku sant sa borom sa bopp nga ko defal fi mu waxee nag ne yaa bunayya aqimi salaata waamur bil maaruf wanha anil munkari wasbir ala ma asaabaka xikkam bépp daje na foofu taxawalal julli julli mooy li gën a yàlla gën a fonk ci jaamu yi mu sant doomu aadama yépp mooy gën jaamag gi jaamu yomal xiyaam moom la ñu njëkk a seet bu sellee ñu soog a seet yeneen jëf yi ci des bu sellul kenn dootu seet dara ci jëfi kooka lépp dañ ko koy taxañ sànni ko ci bët biñ ne julli day dox diggante cëri nit ki ak moy di dox diggante ay bëtam ak xool lu koy jox bàkkaar aar xolam ba lu bon du ci dugg yéene ju bon du ci dugg julli nag na muy taxawee taxawaay boobu di texeel doomu aadama nit ki daf koy sellal jox ko xaqam waxtaan nañ ko ay yoon li mu teg ci julli waamur bil maarufi wanha anil munkari mooy lii nu nekk di fàttalente digle li baax tere li bon bu ñu jógee ci julli la lañ ciy laaj tax gannaaw jëmm ju ne sàmm nga ki gën a néew lu mu sàmm mooy ay cëram juróom-ñaari ndénkaan yi suñu borom dig dénk nit bu ëllëgee ñu di ko seet tomb bu ñuul bu ci dal nga xam ne jëfama muy bëtam yi li muy xool lépp dañ koy bind loxom yi li muy laal lépp dañ koy bind tànkam yi li muy dox noppam yi li muy dégg ba juróom-ñaari ndénkaan yooyu suñu borom dénk jaam bi te di ko seet ëllëg kii amul kenn ku mu digal amul kenn ku mu tere mu digal boppam tere boppam loolu bokk na ci sàmm yi nga xam ne moom lay war a sàmm maanaam jur gi muy sàmm te ñu di ko ko laaj ëllëg bu ci jógee am na rak wala am na mag wala am na soxna wala am na doom am ñeneen ñu yàlla dénk lu ëpp loolu fab yeneen i roo sàmm loo leen ko te bu ëllëgee dana jofal roo yooyu mu sàmmoon te bu ëllëgee képp ku yàlla tegoon ci loxoom mu war koo sàmm la mu warloog moom la mu ko war a digal ak la mu ko war a tere la mu ko war a leeralal la mu ko war a wan na bon na dana ko layoog moom bu ëllëgee ndax sàmm yi ñetti xeet lañu borom xam-xam bi dafa war a digle war a tere wala bu ëllëgee jaam ñi layoog moom yey ko aarif billahi bi wàlliyu kaamil bi ay ruu aji ci moom dafa war a fàggu lu leen texeel ëllëg wala bu ëllëgee ñu jàpp téere baatam daal di jël xaq seen xaq ci moom bu ëllëgee ndax képp koo xam ne yëkkati nañu li ñuy tuddee addiyee jox la ko nga nangu ko lekk ko te amuloo ëllëg lu wóor lu la yàlla wax xamal la ko ne ko bu ëllëgee da nga am añut képp ku la topp boo ko defee bu ëllëgee kooka dana jël xaqam ci yow bu fekkee ne rafet njort la ko tax a def wala ne yàlla yërmandeem bari na yàlla yaatu na boo ëllëgee boo naroon a texe it sa texe googa daañu ko fa fayee ko ñi nga xam ne tënkoon nga leen ba demuñu foo xam ne buñ demee ka ñuy topp ëllëg dana amub añ nga gàllankoor leen ba demuñu ca texe googa ñu waroon a texe ji fa ñu waroon a jëm nga gàllankoor leen ba demuñu fa da nga leen fay loola le boo amul dara nag seeni bàkkaar la ñu fa teg la kon doomu aadama bu nekk war nay jaar ci lu ko wóor sukuraat jaar-jaar la boo xam ne bu tiis la bàmmeel rawati ko bu ñu jógee ci bàmmeel it dox ba ngay dox jëm bérébu daje ba moo rawati fa tiis ba gën a bare fa ñuy daje nag taxul ñuy wax ak yàggaay ba na mu mettee wax nañ ko ba tàyyi jéggi siraat soog a ñëw kon nag wanha anil munkari wa amur bil maaruf wanha anil munkari digle yiw tere lu ñu tere jaam bu ne war na la ndax kenn ku ne am nga koo ko mën a defal te bu waree ci yow kat ci moom boo ko deful bu ëllëgee da ngeen ko layoo jaam ñi nag bu fekkonte ne kenn ku nekk ka nga tane ci xel ka nga yilif taxaw nga temm ci jaarale ko ci yoonu jub bi suñu borom waxee ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaasu wal xijaara yéen jullit ñi yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ak yonent bi na ngeen fegal seen bopp te ngeen fegal seen ñoñ safara si nga xam ne ëllëg nit lañ cay xam ak i doj safara juróom-ñaari bunt la te juróom-ñaari bunt yooyu bunt bu ci nekk am na ñu ca war a jaari te ñu ca war a jaari kat la leen ko yóbbee ñoo ko defoon fii liñ tàmbali nag moo di yar yar dana soppiku ni jamono di soppikoo ni yàq-yàq yi bare la yar gën a bare ba gisee li gën a bari ci sunuy waxtaan ñu di ci taxaw ci wax mbirum yar daanaka yar ci la lépp aju dañu wax ne xaleel jàngal bi ñu koy jàngal liñ ko jàngal day sax ci xolam ni ku fekk doj yu dëgër nga boyaade ca maanaam nga rëdd ca ba mu marqué nga xam ne du far li nga jàng nag ci waxtu ndaw mel na kuy bind ci ndox xam nga ne boo tegee sa loxo rek mu maasaloo ñu soppi itam xaleel yàlla ak yonent bi ak lislaam njëkk ci xolam ndax dootu far mukk niñ koy jiitale ci xolam ba mu matee dal jàng ñu dalal ko jàng bu mu yem foofa ndax xam du am njëriñ fekk jëfewuñ ko xam-xam bi ñuy jëfe nag moo ëpp njëriñ bi ñu jëfewul nanuy def ba jëfe xam-xam xale yi dañuy jëf lu baax ñuy gis ñu di ko waxtaane ñuy dégg ñu di ko jàngale itam di leen ko jàngal di leen xool itam fu ñuy dem lu ñuy jëfandikoo lu ñuy waxtaane lu xew ndax li yàq dafa gën a bari liy defar ndax al kufru millatun waahida mboolem xeetu yéefar yi am yépp ñoo bokk lu ñu bëgg li ñu bëgg mooy jaar ci yoonu safara kuñ ca mën a yóbbu it yóbbaale la ca gannaaw nag loolu noonu la mel lu baax kenn waru caa xeeb dara fépp foo dégg loo mën a jëriñoo loo mën a jëriñ ci sa diine wala mu di la fàttali sa ëllëg wala mu tax laa farlu wala mu tax laa tiit war ngaa ŋàbb sa tànk ba àgg foofa lu mu sori sori ndax na mu gën a sori sax la gën a ci yow ndax jéego boo jéggi rek dañ la koy bindal nee na boo jógee ci sa kër jëm ci béréb boo xam ne da nga fa xam menn masala rek maanaam lenn lu yoon ne lii ci war wala lii bon na wala lii baax na nga di ko fa déggee jéego boo jéggi dañ la koy bindal yiw bu yomal xiyaamee ñu fay la ko boo àggee nag fa nga xam ne fa nga koy war a dégloo nga déglu ko bu baax ngir yàlla bu yàlla dogalee nga fàtte ko ba nga fa jógee ci jotuloo koo jëfe daañu la bindal yoolu jóg wute xam-xam ba àgg fa nga koy wute ba sàkk ko ñàkk koo am ki ko def nag te fàttiwu ko ñu bindal ko yoolu déglu masala xam ko te ko jëfe ñu bindal ko yoolub jëfe nag benn yoolub jëfe téeméeri yoolu xam la kon nag xam duñ ko wut lu dul ngir mën a jëfe li nga xam nag boo ko xamee ba noppi te jëfe woo ko xamle woo ko jëriñu la ndax njëriñ li lu néew la ndax bu fekkente ne da nga wacc sa jamono bañ koo sànk ci moy bañ koo sànk ci neen bañ koo sànk ci caaxaan bañ koo sànk ci nelaw jóg ne da ngay dem ngir yàlla wuti loo jëriñoo sa ëllëg waxoon naa ne tànk yi nga jéggi sa dem ak sa dikk yëpp dañ la koy bindal yiw bu fekkee ne dem nga xame fa dara wala sa xol naate fa jëm ci yàlla wala nga fàttaliku fa dara lu la ci li nga jëm ëllëg tuyaaba ji ñu lay bindal dana bari bu fekkente ne nag da nga koo xam ba noppi teg ko fee bañ koo jëfee dana wàññiwaat tuyaaba ji nga amoon dana yóbbu genn wàll ga nga xam ne kon nga xam ne xam na menn masala rek te jëfe ko moo ëpp tuyaaba wala mu ngi tolloog tuyaaba ki xam téeméeri masala ki xam jëfe ko bu ko jàngalee boole ci ay tuyaabaam kenn mënu koo lim moo tax aqami salaat wa amr bil maaruf wa nha anil munkari waxtu woo xamee ne wii dem nañu ba kenn digleetul lu baax kenn tereetul lu bon loolu mooy indi tëj gi ñuy tëj buntu tuub loolu mooy indi waxtu jamono ji saa di taxaw te sallallahu alayhi wa sallam ne saa du taxaw te kenn kuy tudd yàlla nekk ci kaw suuf maanaam kenn ku gëm yàlla nekk ci kaw suuf loolu duñ toog ba kenn dootu doon jullit nit ñi ba tey day am ñuy tuddoo lislaam ñu di leen wax ay jullit mën nañuy jullee ko woor sax waaye dara ci ngëm du nekk ci seen xol dara dara ci ngëm dootu nekk ci seen xol ñooñu kon dañu ne jullit lañu ci atte waaye duñu jullit ñooñee nag waxtu woo xamee ne saa ngi taxaw ak mandarga yi ñu joxe woon yëpp te daanaka yëpp ñëw na ñoo ne bu ñëwee waxtu bokk na ci mandarga yi saa suy taxaw dee gu bari fi mu nekk buñ ko seetee avion yi daanu bateau yi suux usine yoo xam ne ay produits chimiques ay gànnaay la ñuy liggéey muy toj di rey nit ñi ay jàngoro yu kenn mënu la faj ay musiba yu jóge wet gu nekk suuf suy yëngu yu kenn mënul la lim nit ñi di ci dee ak rayante bi réew moo dem ay kuréel la ñuy def yoo xam ne dañuy reyante ñoom ci seen bopp loolu lépp waxoon nañ ko dee gu bari ñu jël ci alquran jël ci alquran bu ko seetee xam ne daanaka ñëw na dëkk boo dem nga xam ne daa nga fekk téeméeri kaang wala juróom fukki kaang boo ko wàññee bala ngay am fukki kaang da nga sonn fukki kaang yooyu ñu ci bari ñu ngi tàmbalee fàtte ñu ngi tàmbalee fàtte ñu dem ba bokk ci mandarga yi ñu gis ci mandargam saa si taxaw mu di jigéen ñi walbatiku dooni góor góor ñi walbatiku dooni jigéen jigéen ñi nañu doone góor nee nañ leen yéen ak góor ñee yem ñuy sol col koo xam ne jigéen daawu ko sol di melowoo melowoo xam ne jigéen daawu ko mel di toog toogaay yoo xam ne di jiite ay mbooloo di dox loo xam ne daawul am ndax alquran dafa ne waqarna fi buyutikunna da ngeen sax ci seen néeg suñu borom séddale ba mu yemalee góor ak jigéen ba noppi séddale seeni liggéey seen taxawaay ci àdduna bi jigéen ji mu ne ko yow na nga toog góor gi di sabab lu ji di la indil lim la indil nga di ko yéwénal yéwénal kër gi yéwénal néeg bi yéwénal xale yi di leen xamal lu baax jigéen bëgg nañu mu jàng ndax mu mën a yar doomam mën koo jàngal mabaadi yi maanaam tàmbalikaayu xam-xam yi ndax góor gi du bari jot jigéen jee ko ëpp jot jigéen ji bu melee na mu war a mel ñu ñu jàngal ko lañ ko war a jàngal xamal ko lañ ko war a xamal mooy tàmbalee jàngal doomam di ko moo ko war a jàngal ni ñuy jullee moo ko war a jàngal kàbbar rukkoo ak taaya ak sujjóot yooyu yëpp moo ko war a xamal war ko xamal na muy laabe tere ko ci lamiñam yi wax ci lu ñaaw mu bañ a saaga bañ a saaga bañ a wax wax ju ñaaw bañ a fen bañ a rambaaj bañ a waxtaane mbiri jaambur di ko ittewoo yooyu yépp jigéen ji boo déggee ñu ne al umm madrasatun yaay ab lekkoon la looloo tax jigéen ji moo féeti woo woon loolu bu xale bi weesoo foofu nag ba am juróom benn at wala juróom ñaar ba war a jàngi foofu bàyyi ji nag gannaaw indi lu ñu dundee ak lu ñu waddoog lu ñu dëkk fu ñu dëkk ak aajo yi nga xam ne moom la ko yàlla teg bu ko lu ci manqué bu ko mënee te defu ko bu ëllëgee ñu topp ko ko te féeg ba fi mu ko diggaaleel baalu ko ko du jéggi siraat bu xale bi àggee nag ci foofu la tàmbali nag diggante yaru baay bi ak ñiy jàngale nga xam ne kon lislaam dafa bëggoon daara yi muy jàngalee gannaaw daara ji ci la jullit bi di génne jullit bi benn muy soldaar bu fekkee ne génn na ci daara jooju di soldaar boo xam ne du war réew mi du war borom réew mi du war jullit ñi day jaar fa gën a rafet kenn du ko mën a ger du tayeel day xam ne li muy def lépp boppam la koy defal te ëllëg dañ ko koy fay mooy xadi ji atte ci atte génn ci lekkoon boobu du jeng mukk du jox nit mukk lu dul xàqam ngir neexal buñ koy neexal du lekk neexal du farfarloo du jeng te day àtte ca la mu xam lu mu xamul mu laajte ji ko wala mu seet ko wala mu wax ku ko xam mu xamal ka ko te du rëy du fayu du fayonte du ne man kat àtte kat laa fee juboo maag moom wala tooñoon na ma naa def lii wala kii sama mbokk naa ko faral daara jooji gannaaw ci la soldaar bi di génne ci la àttekat bi di génne jàngalekat bi ci lay génne bu ko defee jàngalekat bi ci boppam buy jàngal ay dongoom dana leen xamal luy jikko ji rafet dana leen xamal luy tax a mucc dana leen xamal luy tax ëllëg nga doon nit ku tekki dara ku am solo dana leen xamal luy tax ëllëg boo duggee ci bàmmeel am fa jàmm bu ëllëgee bu ñu taxawee ci kanamu yàlla doo am xaq yu bari yu lay topp te da nga bari tuyaaba ndax dana bari ñoo xettali daañu la xamal li jàngale di jëriñ ak yoolam ak njëriñam xam ne kon ñiy jàngale ñoo amee réew ñoo mën a melal nit ñi na leen neex jikko yi nga xam ne moom la ñu melal budul jàngale waxtu wi nu toll daanu ko waxtaane léegi nag fii nu toll jàngale mi demeetul noonu ndey ji ñu doon wax ni mu war a demee lii liggéeyam mënatu ko dootu ko def góor gi li nga xam ne moom la ko yàlla sant xamat jéematu koo xam ba di ko jéem a def wala mu di ko mën daf koy tële te daf koy umpale daf koy fàtte itam lu mu ci xam ndax du doon itteem leneen ay doon itteem daara jooju nag nga xam ne kon ci la ci yilif réew mi ak ñi ko sës ñëpp ci la ñuy génne bu ko defee ñoom itam yàlla la ñuy teg seen kanam ak jullit ñi Seydina Umar radiallahu taala anhu daana wax ne mbaam rek bu jaareew ci yoon kan mu xóot wala doj fakkatal ko ragal naa yomal xiyaam ñu laaj ma ko ndax yilif ki mu yilifoon jullit ñi di amirul muminina war a toppatoo yoon yi ñuy jaar war a topp xin nemmi ko nit ñi ku ci lot ba baytimaal war laa dundal ku ci tawat te amuloo ku la faj ak yoon woo xam ne wii melul na mu war a mel ak nit ñi nga xam ne dañoo amul dëng di lor nit ñi mu jàpp ci seen loxo ba dootuñu lore loolu lépp nga xam ne yàlla daf ko teg ci loosam woowu nga xam ne ëllëg dañ ko koy laaj ndax Seydina Omar jóge na fi ba am lu jóge ñaar fukki at am doomam ji ko génn te gis mu mel ne ku génne ci duus bi ñuy sangoo teraxlaayu bi mu ko laajee mu ne ko ba ma tàggoog yéen ba fi ma toll maa ngi ci xisaab mu Seydina Omar te ku nekk xam na ne jullit ñi gannaaw yonent bi bu Abubakar wéyee Seydina Omar a ci topp moo ci topp waaye nag yan bi mu yenu woon ndax mbirum jullit ñi suñu borom daf ko woyefalul mbirum jullit ñi dafa diis sallallahu alayhi wa sallam daana fab loxoom teg ko ci kaaba gi gën ne yow tabax bii nga xam ne yàlla rek tax ñu tabax la te ci yàlla lañ la tabax te yàlla nga fi nekkal ma màbb la ñu tabaxaat la ma dellu la màbb ba muy nangam yoon moo ma gën a lor benn jullit kon jullit ñi suñu boroom dafa am fu mu leen teg lor leen danañ dana indi mujj gu ñaaw naka noonu nga xam ne jëriñ leen dana indi texe lor leen nag bokk na ci benn nga lore leen seen sa sa làmmiñ wala nga lore leen sa sa loxo say jëf wala nga lore leen terewu àq ji nga leen ameel yooyu yëpp gannaaw dañ koy seet ma ne nag ci lislaam ni mu tëralee gannaaw daara jooju nga xam ne ci la ñiilif réew mi di génne mu defar leen ba ñu mel na yàlla bëgg jullit ñu bëgg ko ñi nga xam ne ñooy aar réew mi ci soldaar yi ñu génn ci daara jooju mel na xam ne noonu la yàlla bëgg jullit ñi bëgg ko muy li indi jàmm ñi nga xam ne itam ñooy lif kuréel yi ñoom itam ci la ñuy génne ñu demee noonu ñiy atte noonu ñi jiite jàkka yi itam jaar ci jàkk ci daara yooyu ba mel noonu ñi nga xam ne itam ñooy jàngale ak lu ñuy mën a jàngale lu mu mën a doon rek njàng moom xam-xam lay indi te xam moo gën bañ a xam te ku xam du yem ak ku xamul lañ lay xamal ñu xamale na ko ni ko l'islam tërale ak nam ko bëgg ko defee it nga mel boo fa génnee mel ni nga xam ne noonu l'islam bëgg ku ko mel nga meloo woo ko doo doon nitu caaxaan doo doon nit koo xam ne da ngay fecc ñu di la tàccu wala ngay way ci mbedd yi doo doon nit koo xam ne da ngay passé sa jamono yëpp ci ay dam yaa ki yoote doo doon nit koo xam ne da ngay topp rek grand place yi di waxtaane politique ak di waxtaane mbirum adduna bi fàtte li nga xam ne mooy li la war fàtte ñi nga xam ne ñoo aju ci yow fàtte say warugar fàtte li ne ci sa kanam fàtte koosu bàmmeel fàtte jéggi siraat loolu lépp nga fàtte ko di neenal sa jamono te wax nañ ba tay ñi ne genn noo gu dem dikk rek doomu aadama mënu koo jënd ci daraam ndax noo googu moo gën fukki junniy dollar ndax mën nga cee jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne buñ ko seetoon mooy gën àdduna am lu ci biiram noo yooyu nga xam ne ëllëg dañ la koy laaj nga def ko ci ak neen rek di nelaw wala toog di waxtaan rek ne ñu ne la doy na musiba rawatina nag boo ko defee ci lu neexul yàlla mu wëlbatiku nekk mbugal bu ko defee bis boo demee ñu laaj la ba nga juddoo ba biñ la suulee ci bàmmeel ana diggante boobu nangami at la ana loo fi def daañu seet bis bu ne la nga fa def daañu seet at mu ne la nga fa def daañu seet ayu bés bu nekk daañu seet weer wu ne la nga fa def bis bi itam daañu seet waxtu wu nekk la nga fa def daañu seet minute mu nekk la nga fa def buñ ko seetee bu fekkee ne donte nit ki jub na ba amul genn tooñ gu mu ci defit waaye jëfu ci dara lu koy jëriñit bu keroogee mu nekk ndóol loo xam ne bu duggee ci bàmmeelam ba basaadi taxaw du añ du reer bu ko jullit jullitub yàlla yërëmul ñaanal ko du añ du reer mu leer la ne kon mu bil maarufi wanha anil munkari fa ida raayta shoxan mutaan wa hawan muttabaan wa ijaba kulli zi ra'in bi ra'yihi fa alayka nafsuka la yadurruka man dalla ida htadayta bi nga xamee ne saxaaba yi dañoo maase ci ne suñu borom teg na ci loosu jullit bu mu doon ngay digle lu baax di tere lu bon mu wóor la ne bu la lislaam falee nit ñi di yëkkati seeni alal di la ko jox ngir yàlla te doo digle mukk doo tere doo waare bu yomal xiyaamee da nga layoo te da nga am gàcce suñ borom ci boppam moo ko digle moo ne na ngeen digle yiw te ngeen tere lu bon digle yiw tere lu bon xaddis bi nee na bu nu seetee fab ti bub ñam dugal ko ci biiru aji xiif jaamu yàlla yëpp moo leen ëpp doole mu ngi mel ne aw taflit ni ko ndoxum géej gi ëppee waaye jaamu yàlla yëpp buñ ko boolee boole ci xet li ku xiif ak ku sonn boole ci koor ak julli yëpp buñ ko seetee ci digle ak tere ni ñu ëppantee mu ngi mel ne aw taflit ak ndoxum géej gépp noonu la ko digle lu baax ak tere lu bon ëppee doole ndax aqimi salaata waamru bil ma'ruf wanha anil munkari man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi yadi fa fa bi lisaanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa aful imaani sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen jullit ñi képp koo ci xam ne gis nga lu dul noonu bu jàppee njàmburam ëllëg daañu ko ko laaj de bu ko mënee dindeeg loxoom na ko dindi bu ko mën la dindeeg loxoom te mën ko dindeeg lamiñam na ko dindi bu ko mën la dindeeg lamiñam na ko sib ci xolam bañ ko mere kooka ba yàlla xam ne kii lii naqari na ko nee na loolu nag mooy daraja ji gën a suufee ci darajay ngëm maanaam tële nga ko ci sa loxo tële nga ko dindi ci sa lamiñ nga sib ko ci sa xol mooy dara ji féete suuf kon boo ko sibul bañuloo ko lu dul nee nga man du ma ko def rek diwa ngi def lu bon waaye man loolu du ma ko def kon sa ngëm ngëm gu lafañ la ngëm gu lafañ la boo xam ne gu manqué la genn wàllu ngëm nga amee nga xam ne kon jullit war la doon jaambur ci dara ci biir l'islam yàlla daf ko digal tere ko wanha anil munkari wasbir ala ma asabaka ci topp moo di na nga muñ lu la dal ndax yàlla bala nga koy wan ne sa nangu naa ne sa dëgg-dëgg jaam laa mu teg la lu la naqari wala lu la metti wala lu la tiis wala loo bañ nga muñ ko ngir moom genn jaamu yàlla ëpp ko doole yàlla yëkkati nattoom teg la yow xamula lu mu la ko tege yaa ngi nekk ak fukki nit mu tànn la yow teg la ko nga xam ne kon mën na fekk ne yàlla seet na fukki nit ñooñu nga gën la cee wóolu cib na toom mu teg la na toom nga yokkat mu teg ji wala mu tegaat nattu di ñaar bii nattu la bii mbugal la nattu mooy lan li ñuy tudde nattu mooy li la yàlla teg ak nu mu mën a demee nga xam ne yàlla la ko teg benn jaam tegule ko bu fekkoon ne nit moo xàcc jaay si dóor la it da nga jëflanteeg moom li ñu jëflanteeg nit ku tooñ waaye du tee nga gëm ne rek yàlla kat moo ko ko sant maanaam yàlla dogal loolu am ndax bu ko namoon te yàlla dogalu ko it du mën a sotti bi nga muñee nag xam ne li la li la yàlla teg la mu leer na le tuyaaba la lay indil te yow kat yàlla mën na fekk ne dafa am daraja jum lay fas yéene yëkkati yomal xiyaam ba nga àgg fa te sa jëf mënu caa àgg te daraja dafa war a ànd ak jëf mu teg la lu la tiis ngir nga yeyoo maqaama moomu le misaaloon naa ko ci wenn waxtaan wu fi weesoon benn wàll yi boo xam ne dafa doon dem ba romb ci bërëb fekk wàll yi bu fa nekk di jaamu yàlla guddig ba ci ci digg àll bi gisul kenn déggul kenn jotewul ak kenn dara du dul jaamu yàlla rek di jaamu yàlla ba naaj bi jot ko ker gi dem mu nuyoo moom ne ko yow randu sil ci ker gi yërëmal sa bopp mu ne ko waaw bu ma sëlmalee kambaraatuma lu dul waaxu jëm ci kër gi diggante boobu bu ma fi yàlla moomee lu may wax mu daal di taxaw yéen waajooju xeeb boppam lool ci farlu farlu gi koo ko farlu te moom mu sàggan mu daal di laaj suñu borom ni ko waaw sa jaam bi ni mu farloo ak ni ma sàggane mu ne ko kii day dama koo bind ngir maqama sàngam laa ko bëgg a yóbbu dana dund dana dundaat ci àdduna ñeen fukki at war na koo dundaat dese na ñeen fukki at ci dund wàllu ba dem bi mu amul ñaari waxtu mu wàññi ko dikk fekk wàll yi booba mu romboon gaynde rey ko ba di ko lekk mu dal di jaaxle lool nag dal ne kii suñu borom ne woon dese na ñeent fukki at yi mu war a dund ak kii ni mu toll ci yàlla gaynde rek di ko lekk man dencaloon li muy farlu lépp jëfam ji mënu ko faa àggale dara mënu ko faa àggale lu dul gaynde googu rey ko rek lekk ko moo mën a tax mu àgg ca maqaam moom moo tax ma teg ko loolu ñeent fukki atam yooyu la jaay ak reyinu metti wu doy waar woowu moom la jënde marta ba booba nga xam ne kon kooka suñu borom teg jaaral na ko foofu xamal ko ko ci wetam lu ma fukki jaam yoo xam ne suñu borom dana leen teg lu mel noonu te du leen xamal lu tax du leen xamal lu mu doon foofu ana lu fi di fi nit ki ngëm rek ngëm nag ay daraja la boo àggee ci yaqin yaqin moo di wóolu goo xam ne bu ñëwoon ëllëg la saa di taxawit ni nga meloon du soppiku foofu mooy catal yaqin abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhu nee na allahu alladi xalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman yatanazzalu al-amru baynahunna nee na aaya jooju su ma ko firi woon ñu rendi ma kon jullit ñëpp daañu ne yéefar laa ndax ay secret yi ci nekk yu xóot ci jëfandiku suñu borom ci li li nekk ci diggante asamaan ak suuf mu di ay doomu aadama mu di ay jinne mu di ay malaayika mu di ay baahima nga xam ne soppandiku suñu borom kenn mënu koo xalaat xel mënu koo xiyaas jaam bi kon li ko war moo di jox boppam yàlla du wëlbati du ñaawal du rafetal wéer mbiram mépp ci yàlla bu fekkonte ne fanaane naa jaamu yàlla lim amoon lépp mu joxe ko xëy suñu borom teg ko musiba it mu daldi koy wóor ne rek musiba mii kat yiw la woo xam ne wi keneen amu ko te jëf ju baax ji ma jëf moo tax ma yeyoo ko suñu borom teg ma ko dafa am benn ci saxaaba yi ku ñëwoon ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam man de dama la sopp lool mu ne kon nag séenul musiba mu ne ko man dama bëgg yàlla lool mu ne ko séenul balaa ndax yàlla na nga ko gën a jegee sëñ Moussa Ka nga xam ne ka gën a xejjey gën a gis na tomb ba ka jege pay bàyyi gën a gis tiisam yëpp am na jëmm yoo xam ne suñu borom daf leen di roof tawat yoo xam ne day nekk ci ñoom te duñ sañ kenn xam ko dëkk ak ñoom ba ba ñuy dee nga gis ñi xam ne suñu borom daf leen di teg loo xam ne bu ñu sañoon daal di dee fi saa si ndax métitu loolu mu leer ne leen ne lañ ko jëndee jar na lu ko buñ bis buñ liñ ko xam-xam-xam bis buñ leen ko fayoon buñ demee moo tax buñ leen ko fayoon ñu bëggoon loola leen ñu ful ko ba muy junni yoon ñu tegandoon wasbir ala ma asabaka mooy ñetteelu martaba yi fi la ñuy xàmmee ngëm xasiba naas an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna suñu borom ne ndax nit ñi dañoo defee ne daanu ne gëm nañ yàlla rek ñoo ngi jullee ko woor nu bàyyi leen te duñ leen seet ndax duñ leen nattul xasiba naas an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna déedéet suñu borom nee na ci beneen saa wala nabul wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu axbaarakum danaa leen nattu ma xam ci yéen ñan ñooy mujahid yoonu mujahid mooy ki fab bakkanam ruuxam ak alalam ak dundam ak léppam jox yàlla xam ngeen ni mujahid bu deewee mooy shahid waxtaan leen shahid ba tey ku shahid mooy ki nga xam ne bu deewee daanaka soxlawul ku ko sang ku ko sang ku ko jullee soxlawul dara ndax lu tax dafa faboon léppam maanaam adduna medd la mujahid nag dara ci medd mi takku ko dara ci medd mi xasawu ko bañ di ko sang lépp ndax mooy ki nga xam ne bu mu génnee këram fas yéenee day jox yàlla léppam xolam dellootul ci dara lu moomoon ci àdduna dara ci ci lu li ci àdduna amul lu ne ci xolam kooku set na ci àdduna wecc nga xam ne nit ki bu tolloo ci sukuraat li mu gënoon a bëgg ci àdduna nga xam ne loola mooy buux ngëm gi ci biir xolam loola mooy buuxonteeg ngëm gi ci biir xol bi la mu gënoon a bëgg nag bu tolloo ci sukuraat ba nga xam ne kumpa yépp dañ na ba ñu ubbi lépp ba mu jànloog secret yi loola lay gën a bañ loola lay gën a sib loola lay gën a watt loola lay gën a ragal bu fekkee ne sax dafay nit koo xam ne ci misaal xaalis rek la bëggoon ba fu mu toll mu ngi xalaat xaalis bëgg googu mu bëgg xaalis mu ngi booxante bëgg gi mu bëgg yàlla ak ngëm gi mu gëm waxtu woo xam ne mu ngi toll ci sukuraat ba ñu muri kiiraay yi kumpa yi newoon ci xoli jaam ñi ba duñ gis ndax jaam bu nekk am na téere bu nekk sa xol boo xam ne bind nañ ca lépp lépp lépp waaye jaxasoo gi nga jaxasoo adduna ak takkoo gi nga takkoo adduna ak ni mu nekk ci sa xol ak sa xel nekk ci say bët nekk sa nopp moo tax doo ko gis ki nga xam ne dem na ba teqali ko yooyu yëpp daf koy gis di ko jàng ba xam lépp bu fekkee nag mu ngi toll ci diggante boobu sukuraat day dal di janloog la mu bañoon mu janloog ni leeroog yàlla leeroog yërmande yàlla ni mu jëmsee ci xolam mi dox mu gis ni loolu doxee ci diggante bi ba nga xam ne ceeñeer yu néew mooy facc ak si ci xolam te ceeñeer yooyu mooy yërmande yàlla mooy li koy yéem mu leer ko ne li mu bëggoon mooy gaaf mooy gaaf gi ko lor moo xam nag xaalis la moo xam daraja la moo xam lu rafet la moo xam lu neex la mu xam lu mu mën a doon rek mu xam looy yóotu bëgg caa àgg te àgg gooy te la lu mu mën a doon rek na mu la gënee na mu gën a saxe ci sa xol rek gën nga koo soree yàlla na mu gën a saxe ci sa xol gën nga koo soree yàlla alquran yaa yar saaba yi ba nga xam ne loolu lépp nekkat ci seen bopp li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu ma atakum suñu borom dana leen nattu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen jàngal di leen waar di leen yee ba lépp lu ngeen ñàkk bu ngeen ñàkkoon adduna ak li ci biir nit du leen naqari musiba ma gën a rëy bu daaloon seen kawit du ngeen ci am njàqare du ngeen ci am métit li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum yama Uhud ci xare Uhud bi nga xam ne ne xeex bi metti na ba metti ba metti ba doy waar ba nga xam ne jullit ñi ñi dawul woon teqalikoo nañu ba da ngay gis kenn fii junni yéefar wër ko kenn fële junni yéefar wër ko kenn fële junni yéefar wër ko ñu ne nag rey nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne jullit saxaabi yu ci jamono yonent bi ànd ak moom ci xeex buñ ko nee rey nañ ko addunaam yëpp tukki na addunaam yëpp tukki na loolu lépp seytaane dugal ko nag ci xoli nit ñi ngir ñëpp gëm ko ngir jullit ñi daal di wane gannaaw nag yéefar yi topp leen jekkali leen topp rob topp leen ba madinatul munawwara ñu rendi ñëpp kenn du def loolu moo doonoon seen projet ñu ne rey nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbooloo bu bari daw sallallahu alayhi wa sallam taxaw bis boobu lañ ko dóor doj ci gémmiñ ba bañu suuf bi damm ñu dóor ko doj ba mbaxanam weñ mi mu mi mu mi mu soloon nor ci bopp bi ba jaaro bi matt ba dugg ci jëbi ñu gas kan ci kaw ñàkk te nekk ci saay moom mooy bi ci ndawam bi taxaw wuutu boobu nga xam ne nag ci misaal signature am la amee lu mu wax kookaa ko wax lu mu def moo ko def ci wax yooyu dañuy toll ci béréb yoo xam ne dañuy jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jaawalee seen ba ndoxam suuka ni ñu mel bu ñu dee wax day mel ne yonent bi wax lii saa noonu la ñu mel suñu borom ba bu ñu nee wax day mel ne suñu borom lay wax bu Cheikh Abdou Qadir Jilani bi di wax naan lëndum toofaan ci muy rëy rëy ci sama seen pëli la nekkoon loolu ci yàlla Yunus ba mu sabba maa tax mu dëkk jënoo dëkk ko mu génn ci biir jënoo génn ci biir géej gi yoon daal Ibrahima bi ñu ko sànnee ci safara wa man sama ñaan moo teral safarawa ba lëkkul wax ne yoon bi yàlla noox lëndum toofaan waaw moom laa wax ne ci seen am la la tege woon loolu mu wax yëpp ñeneen ñi dafay ñoom wax maqaam mu ko doon waxee rek góorandoo ku fa toog mën a wax lu mel noonu mooy li nga xam ne te abu yi Sibistani yi ne xuus naa ay géej géej bi leeri yàlla yoo xam ne yoon bi yaa nga taxaw ca tàkk nga ak duñ ca ndox ma te moom du yonent wala yu rek la daal mu ne rek sax li ko noonu Cheikh Ibrahima Dabuqi wax ni lu mel noonu nga gis keneen koo xam ne du ma tudd turam ñun bàyyi loolu sax man wax rek ci gaa yi yàlla yi daal suñu borom may na leen may woo xam ne dañu si ko nettali wala maa yi nag ndax ñoom suñu borom jox na leen ñetti téeméeri ñetti juróom-benni téeméeri xam-xam xeeti xam-xam yoo xam ne tur yi sax ulama yi xamuñu ko tur yi xam-xam yi rek ulama yi xamuñu ko dana nga xam ne wut na ñoom ñoom raw nañ leen raw boo xam ne xel mënu koo xiyaat ñooñu seen mbir tuuti lañ koy wax lii ñu ciy wax day fekk lu ñu xeet ba ci ko benn rek loo sànni mbub moo xam ne sol ko ba ne xar na rus naa koo solo bi sànni wala nga may tëri li ñuy wax ci ñoom lu mu rëy lu mu gis gis ñoom rek la toll loolu la mel ci ñoom fa nga xam ne nag farañ toll moom ak fa ñu soog a weesu dem di ko naan di def ko ko wax ah nit ki nag bari na yoo xam ne nag la yéen ma dem ba bëgg wax dara rek waaye mënu ma ko wax ndax daal ñu dëggalee ma daal
kon nag bàyyi daal jërëjëf yàlla nañ fi yàgg defe naa ne waa Delo nu mu waa Delo dana taxam dama kàmba rek sama borom xamal na ni ma du dox ci sama kanam ci ba filee dëjëg kàmba ba su dox ak ma jéggal ko moo tax ma yàggal taxawaay bi ndax ñu bari dox